toll nañ ci juróom-ñaar fukk ak juróomi expert seen xel màcc jëm ci xeex li ñu duppee terrorisme amaloon visite ci port autonome bu Ndakaaru ànd ak directeur général bii di Mountaga Sy délégation bi daal dina wër plan d'eau bu port autonome bi lay ngir saytu jumtukaay yi nga xam ni def nañ ko ci wàllum kaaraange yi. ñu kontaan ci liggéey bi ñu def ci port depuis un an gëm nañ ni li Sénégal def ko ba léegi loolu dafa jar a copier ci Afrique loolu moo tax fi ñu toog ni suñu xel dafa ci li force de défence et de sécurité def fii ci Sénégal ñu indi seen i ay ndaw ànd ak ñun ñu gérer port bi. daanaka laaj yi bëriwul te liy wone ne laaj yi bëriwul ñoom li ñu yaakaaroon ak li ñu doon xaar bi ñëwee fekk nañ ko fi man may le conseiller au situation d'urgence mais li ma gis dal na xel. nga xam ni am na Sénégal daanaka ndëgg ni ñetti fan daal nañ ko jébbal résultat yi nga xam ni port bile def na ko ci atum 2023. tout ceci démontre que lii yëpp nag dafay wane rek port bu ndakaaru soxla na ab kaaraange gu mot sëkk dafa di ab bërëb foo xam ne nit ñi bëri ñoo fay daje di def ay échange waaye itam di transiter. poronto bu ndakaaru ñu daal di koy jaajëfal ngir kaaraange gi mu amal ci ndoxam rawatina ci li ñu tuddee rade extérieur nga xam ni daanaka bépp jafe-jafe buy am ci port foofu lay faral di jugee. radu extérieur mooy diwaanu port boo xam ne domaine bi dafa nekk ci ndox bi foofu la risque yi gën a bëri Sénégal am na déjà solution bu yàgg moo tax ba tey. amuñu benn attaque pirate te dañ koy continuer di surveiller. délégation bile kàngama kàngam jóge fu ne ci àdduna bi fas yéene dellu seeni dëkk lañu jàpp moo di ni Sénégal dëppoo na ak norme yi nga xam ni moom moo am ci yeneen réew yu mag yi.